asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu man maa ngi tudd Momadou Ndiaye maay euh, lëkkale coordonnateur kuréelu julli géej gi waaw fi ñuy tàmbale rek mooy waxaat alhamdulilahi rabil alamin ni ñu ko waxee woon ca bay weesu ndax dajab tey bi day firndeel daje bee nga xam ne moom la ñu amoon jamono yële weesu ci bureau gouverneur euh, daje woon fa ak kilifa yi nga xam ne ñoo ñànk ngoo ngànk réew mi ngànk ndakaaru Euh, ñoom it ñu am sas yoo xam ne bi woon nañu ko ngir jëmal bés bi ngir bés bi mën a mel ni mu war a mel yàlla dogaleen ñuy dox ba jëmmi jamono ñoom ñii ñu àndaat ak ñun ngir saytu ku ci ne jéego yi nga xam ne yaa ngi koy dox naka la ñu war a def ba jéego yooyu yokk ak fan lañ ci toll ngir taaru bés bi ak taxawaayu bés bi waaye noo ngi santaat yàlla bu baax ndax ni ko gouverneur waxee léegi yàlla suturaal nañu ba lépp loo xam ne yéen a juñ ci amoon la mën na noo wax ni la ci ëpp suñu borom dogal na def nañu ko li nga xam ne it moo fi desandi mooy loo xam ne day ànd ak jamono te mënta mat lu dul bu bés ba jotee ci lañ koy matale waaye fi nga xam ne it suñu borom dogal na am na lenn luñ ci xalaat ak néew rek te it ay pexe ju ñeenti citerne ndox ndax barab la boo xam ne laab dafay am solo lool ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi waaye fa ñuy defaree bernde it da am solo lool euh, yàlla dogal na ni it euh, ñi nga xam ne ñoo sasoo woon loolu muy waa CNO wax nañu fi seen doole toll waaye ñoom ñii nga xam ne noonu bokk jilif ñun ñëpp it nag am na jéego yoo xam ne fas nañ ko yéenee dox suba te yaakaar nañ ne buñ ci yeggee yàlla mën nañoo suturaal ba nga xam ne moom lañ ci bëggoon ñu ñu ñu matale ko. lépp loo xam ne it ni ko sëñ bi waxee ci garab yi ndax barab la boo xam ne mbooloo moo fi daje kon wéré di mën na fay feeñ lu ne mën na fay feeñ waaye gannaaw loolu it am na saytu yaram yoo xam ne des na ko fiy def te kenn du fay dara loolee lépp nguur gi daan nañ ci jàppale ci ay garab ngir mu gën a woyof mel na ni jaayante boobee dees na ko matalewaat suba bu soobee yàlla moom la préfet bi wax ni jël nañu ko ba bu ñu gisee ki nga xam ne moo yor kër docteur ci gox bi yaakaar nañ ni suba dinañu ci am li nga xam ne la ñu ci bëgg bu na ci ñoo xam ne euh, waa ONAS am na luñ ci sasoo woon waaye xat-xati jamono tax ne mënatuñ koo matale waaye ñëw nañ ne mënuñu koo matale waaye comme pexe bi jeexit nag gouverneur bi moo ñu bokk yilif ñun ñëpp booleeg suñuy pexe am nañu yaakaar ni suba dinañu am jéego yoo xam ne dana danañu ko ci dox bu soobee yàlla ba yaakaar nañ ni la nga xam ne namm nañ ko ci yàlla mën nañ cee waaye daal ci tënk daal nañu jàpp ni la ñu tënkoon keroog ak ñoom ñii di autorités yi yàlla suturaal nañu ne bu dee xaaj xaaj ba tegaat na xaaj ba lépp mat na noonu ci yàlla bu baax alhamdulilah rabbi donc il faut dire que la rencontre qu'on a tenue aujourd'hui fait suite euh, au CRD au comité régional de développement qui a été la gouvernance de Dakar avec le euh, comité d'organisation de cet événement religieux euh, dénommé Magal Fàttaliku Julli Géej bi à quelques jours de l'événement on a jugé nécessaire de nous dépasser la première réunion s'était tenue chez nous à la gouvernance donc cette fois-ci euh, les autorités ont jugé nécessaire de mobiliser l'ensemble des chefs de service qui sont impliqués en tout cas qui sont concernés par l'organisation technique de cet événement de venir sur site avec le comité d'organisation tenir une séance de en vue de voir euh, des recommandations qui ont été issues du CRD, qu'est-ce qui a été pris en charge et qu'est-ce qui reste à être pris en charge, afin que les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, puisse euh, se prononcer et donner des garanties que ce qui reste sera fait d'ici euh, le jour J, qui est prévu le vendredi 20 et qui va se dérouler jusqu'au samedi Et nous nous réjouissons de la tenue de cette activité, parce que ça nous a permis de savoir toutes les recommandations qui sont issues euh, du CRD, en tout cas, ont été prises en charge, euh, à l'exception de quelques trois ou, quatre points, à savoir euh, la mise à disposition des citernes d'eau, parce que vous savez que l'événement coïncide un peu avec le Gamou, parce que c'est pratiquement au lendemain du Gamou, et que les services ont dû mobiliser toutes leurs citernes d'eau pour les besoins des manifestations dans, sur le territoire national. Mais nous avons quand même donné à la CNO e Euh, de faire de sorte de mettre à la disposition du comité les deux citernes d'eau dont elle, dont elle dispose et que le reste des citernes d'eau, nous allons voir du côté des autres structures que sont l'OFOR et l'hydraulique pour que, en tout cas, le comité d'organisation ne puisse pas souffrir de ce déficit de citernes d'eau afin que l'eau puisse être approvisionnée comme cela se doit à la hauteur de, de cet événement. Euh, problème qu'on a, qu'on à part euh, le ravitaillement en eau, c'est le problème de l'approvisionnement de des médicaments. euh, le sous-préfet des, des Almadies, je rappelle que nous sommes dans sa circonscription, a pris l'engagement en relation avec le médecin-chef du district, M. Abdou Karim Diop, de faire de sorte que euh, des médicaments puissent être mis à disposition de l'ensemble des pèlerins, des fidèles en tout cas, qui seront là le jour, euh, de, de, de l'événement et jusqu'après l'événement. Je crois que l'autre problème qu'on a, qu'on a soulevé, c'est les toilettes mobiles. Parce qu'effectivement, c'est l'ONAS qui s'était engagé à mettre à la disposition du comité des toilettes mobiles. Mais malheureusement, avec des contraintes administratives, euh, ils nous ont fait savoir que le nombre euh, sur lequel ils s'étaient engagés ne pourra plus être respecté. Mais quand même, il n'y a pas péril à la demeure parce que nous avons pris sur nous-mêmes euh, de cette rencontre, de saisir les collectivités territoriales, à savoir la ville de Dakar, euh, pour qu'elles puissent la disposition des, des organisateurs, tout cas combler des toilettes mobiles parce que je crois que les organisateurs avaient misé sur 30 toilettes mobiles et que malheureusement on s'est rendu compte qu'à deux jours de l'événement, il n'y a que 10 toilettes mobiles qui seront disponibles. Maintenant, pour le reste, on se réjouit que pratiquement ça a été largement pris en, pris en, charge, à savoir euh, les effectifs des forces de défense et de sécurité, la police comme la gendarmerie, et en plus d'être là, d'être présent avec un effectif très important, ces deux structures vont mettre à la disposition des membres du comité d'organisation des barrières, à hauteur de 400 pratiquement, parce que la gendarmerie s'engage, la, la police s'engage à amener 250 barrières, la à amener 150 et elle dit qu'elle peut même aller au-delà de ces 150 barrières. Donc, euh, d'une manière générale, on se réjouit de, véritablement euh, de savoir que les services de l'État se sont tous qui se sont tous, qui s'étaient engagés à en tout cas accompagner euh, le comité d'organisation. Ils ont tenu leur, leurs engagements au grand bonheur des organisateurs, mais également au grand bonheur de nous, autorités administratives, qui avons la charge de la coordination de ce grand événement religieux qu'est le Fatluko Djulik